dafa war a bari jaagar jaagar jaagar ak cëfar cëfar wala du noonu waa jigéen Mame Penda bu ma wax loolu ñu may jàppee suba waaye ma yem naa ko bu ma wax loolu ñu may jàppee suba ndax yoo xam naa mën a toppee damay wax ba taataata du ma ko def <laughs> du ko def xam naa yéen journaliste yi da ngeen di dugalaate du ko def léegi euh, Bella damay gis en en général jeune fille jeune fille nek ci troupe théâtrale yi dañuy nek ci biir troupe bi di di doxaanante ak xale góor troupe bi loolu mos na arrivé wala mosul arrivé wala amu benn tentative aussi ci troupe troupe théâtrale bi nga jot a liggéey. yàlla dimbali na ma nag ci loolu man Xaadim xam naa li may wax artiste Sénégal yëpp sama xarit lañ artiste waxuma artiste Thiès de artiste Sénégal yëpp samay xarit la ku ci ku ci duggee ci benn dëkk dara xew Cees muy jànqen organiser ko ak jànqen yàgg ko ñàkk ko organiser sama kër ngay dal bu dee bu dee lekk danga naa ma defaral ma maa ngi ñëw fi ngay sangoo fi ngay soloo kon donc loolu xaju suñu diggante jànqen nag waxuma la man mais loolu musu cee am xam nga tax musu cee am jànqen ña ñu jiite ñoom ñoo ñu yar ña ñu jiite man Seex Sekk ñaame seen Jules Dramé ak Alioune Sow lu ne ci man ci aar ñoo ko ci def ñooñu kon doom lañ lay jappé parce que kula kula yar bi nga jang école mou lay jàngal théâtre bu maggé xélam du nek ci ak yow jànkeen non la démé ñom daba sumaare ak ñom ñambé sen ñom mamba ñom dé séni seen ñoo troupe ci numélan kon lolu famille la jànkeen waxuma la man mais lolu musu ci am doxaanante boobu suñu biir musu ci am. Abila ah, loy xaar pour marié nu mu demee da ngay dàqaate wala. ah da ngay wala du mu demee non du dàqe mais aussi nit ñi faaw ñu xamni ni si yalla la sëy wa yalla la. tam yalla yalla be sa tol lo xamni du affaire nit affaire yalla bu ko bu ko bu ko ah yow mam Penda danga ma bëgg a dugal <laughs> maam Penda yow danga ma dugal yow dugal si gay ngay wër waaye du ma duggoon am na loo xam ne du affaire nit affaire yalla la. li di sey li di dom du affaire nit affaire yalla la yalla mom mo koy def man tay lu ma bañ bañ bañ bañ sëy mu neex ma mu nakari ma yalla dogal ko. ni tey jii damaa war a sëy mënuma échappé ci loolu damay sëy moo tax mën la sëy affaire yàlla la bañu ma ko jigéen bu ne bëgg nga sëy jigéen bu ne bëgg nga jigéen bu ne bëgg nga am njaboot franchement mais nag aussi am na foo xam ne boo fa tolloo tamit da ngay toog nga xool tuuti parce que fi mu toll nii mënuñu xàmmee ñuy bëgg ak ñu ñu bañ ndax pëcc xóo beeg rajo xóo bi bari na wootante téléphone bi bari na lijjanti numéro ak noo ko mënti amee bari na yaa may dégg moo tax doo mën a xàmme ma day fa am moment bu xam da nga def stand by nag nga toog nga xool parce que tamit bëgg sëy ba jàpp janax juy daw da nga jàpp ne jëkkër a ngi ne tamit jaru ko mais tamit parce que sëy dafa am fu nit ñi teg fa la ñu nit ñëpp xoolee muy xaalis mais artistes yi dañuy sëy mais artistes yi am nañu artistes yi fi amul ay jëkkëru milliardaire ñëpp seen jëkkëri xaalis te kenn du ko xam léegi pour quoi nit ñi ñun bëgguñu Casamance nit da lay bëgg sax mais bu amul xaalis da wax ba nga dégg ko kii wax kii ñemewu maa dem parce que du wax ak man mais loolu dafa metti ñun ay nit lañu ay nit lañu te gis nga nag li ma lay wax dañaa artiste duñu sëy artiste fi dàq sëy artiste fi dàq bëgg. artiste bu artiste dañuy sëy noonu ba dee di bëgg ba dee bañ ku leen waxal ëllëg. divorcé nag moom mi kat nangu toppatoo ci. waaw boo defee ñu wax loolu lañ ciy daw parce que boo defee ñu wax soo deful ñu wax dañoo weex donc. yàllaa ñu ko cërale daka na kaay ma wax la gis nga ñiy wax ci yow bark yàlla majeure partie bi ñëpp duñ la xam duñ la xam duñu xam yow la kan duñu xam foo dëkk duñu xam foo man des fois damay dégg-dégg toog dégg na am naa doom wala sama rakk di jàngi dugg ci taxi ñaan balaa am na doom balaa am na jëkkër est ce que kooku xam na ma oo ma jëkkër oo ma doom mais ñu man invité dañ ma ci benn télé benn gel woote ni ma man dégg naa ne am nga doom te da ngay te ngay nëbb sa doom yi ma ne ko doy na mun ma ñaari doom yu góor ma ne ko yàlla na ma ko yàlla may ndax ay seex laa bëgg sëñ Fallou ak li nga wax mu naa man ko duma ko dàq xamuñu la mais jigéen bu nekk taaru jigéen sëy jigéen loo mënte am ci àdduna te amoo jëkkër amoo dara taaru jigéen sëy yaa ngi may dégg bëgg nañu sëy aussi du question dañuy taamu nit bu am xaalis parce que nit mën naa am xaalis te doo ci lekk góor mën na am soldu cinquante mille francs nga gën a bëgg ki jëkkëram yor ay milliards joxu ko ko say complicité la ndax mbëggeel ken xamul lan la ñun dañu bëgg jëkkeur bu ñuy comprendre ben jëkkeur bo xam ne du déglu suñu digënté sama suñu ak mom dara aussi jëkkeur bu mëna muñ limi dégg ci biti lool nag mo jafé lool mom mo jafé mais jigéen bu ne bëgg nga sëy Mame Penda te xam naa boo nga dafa bomba say go ta fuñ fu mom dafa mel yag yag yag na xam fémi ñi ñi ñi ñi ki wa xam nga xam nga ñun ay femme lañ nag ay homme ay femme lañu duñu ay homme te jigen bu demee bañ koy jaawale góor moom dee ko gën mais dee ko gën man li ma waxoon temps yee rek yaa ngi ma koy wax léegi ni ma ni ma ma seetaan nga ko euh, jëkkër góor dafa góor moo xale ñoo yem soo ko naxee daf lay ñuuxu te góor ñaar yi la bëgg këru noflaay ak dalal xel soo ko ko mënee may yow yaa ko moom parce que mënoo nekk ci bureau ba di sonn wàcc fekk sa jabar muy xeex wala muy xuloo jëkkër da koy defal jëkkër da nga koy mat fépp fépp ba fa mu làmb di la daj jëkkër da ngay dalal xelam li may wax parce que jabar dafa cher ci jëkkër parce que jabar mooy ki nga xamante ni nii moom la faalu di romb léegi wala am Seydina Mohamed romb léegi mu leer nit kii yéen ñaar ko bokk jur ko te xamoo fan la xamoo kañ la xamoo naka la dèjà mooy li ngeen bokk rek mënu leen ko xaaj mu nekk loo xamante ni nii nag booy tëdd da ngay sëy xam nga li may wax booy tëdd sa jabar ngay mujjee waxal boo yeewoo moom ngay njëkk a waxal kooku kan moo gën a jege ci yow moo tax jabar dafa war a dara xelu jëkkëram jigéen dafa war a jonge jigéen dafa war a bari ay feem jigéen dafa war a bari jaagar jaagar jaagar ak cëfar cëfar wala du noonu